asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 12 septembre 2019 ñëw ci yëglikaay yi nag tey sunu lamb la ñuy xëy doore ko journal bi nga xam ne moo di la tribune wala si yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di record bu dee lamb la moom tey fa mu xëy ñëw génn fenn la maanaam daal saison bi la xëy def ci ab jàngat fi mu ko jëmale nag jëmari muy mbër yi nga xam ne ñoom la ñu duppee ay VIP jafe-jafe yi nga xam ne nekk yi nga xam yi nga xam ne nii ñu ngi koy dund fi mu nekk nii ci làmb ji yëglikaay bi nag nee na leer ba leer day diagnostic politique daal moom la ci def maanaam jàngat bu sore sore sori li indi problème bi nag bokk na ci ñàkkum li nga xam ne nii mooy sponsor yi nga xam ne mooy sponsor yi mag a mag yi nga xam ne nii boo xoolee dafa mel ni boobu dañoo sore lii nga xam ne nii moom moo di làmb ji ak tamit ñàkkum promoteur yoo xam ne ñàkk nañ ko ay promoteur yu mag yi nga xam ne daal nañ leen gis ak départ ku ki ki nga xam ne ni moo di Gaston Mbengue ak ki nga xam ne moo di Aziz Ndiaye ak dellu ginnaaw ki nga xam ne Luc Nicolaï dellu na ko ginnaaw yëglikaay bi nag loolu la xëy tey ñëw daal di ciy wax mel ni ki nag loolu fi mu nekk nii de moo indi problème bi nga xam ne ni moo am ci làmb ji ak itam li nga xam ne mooy ay fayeku yoo xam ne ni wala ay ay prix yoo xam ne day mbëri ñu tudd ay VIP ñu ngi koy fayeku mu mel ni kii daal loolu fi mu nekk nii indi na ay jafe-jafe ci làmb ji waaye leneen loo xam tamit yëglikaay bi ñëw na ba tey ci mbir moomu de dana ki nga xam ne ni day moo di Baye Ndiaye Tafa Diop ba ci ki nga xam ne moo di Pape Thialis Seye moom dañoo organiser perte suñu làmbay wax de du sama ay wax mbirum pay per view tamit daa jàpp ne day facteur la boo xam ne nii day bu bloqué mbir la ndax li ko waral yëglikaay bi ne na li ci am mooy da jënd yow sa code war a seetaan te doo mën a seetaan li nga bëgg a seetaan mu mel ni ki nag mbir moomu itam nekk na loo xam ne ni day lu indi ay jafe-jafe la ba nit sax des fois dañuy mujj a dem fa nga xam ne nii day ci réseau câble yi nga xam ne mooy yegg si kaaf ya ngir mën faa seetaan ndax nag pay-per-view moom bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne ni day indi na ko ci lii nga xam ne nii moo di làmb ji ndax da ngay gis koo xam ne danaan la jënd naa ba pare waaye pour ma seetaan day doon ay jafe-jafe ci man yëglikaay bi di suñu làmb daal tey xëy foofu la xëy tey ñëw awale fa ay mbiram waaye leen loo xam ne tamit yëglikaay bi xëy na ci yëy wan ñu ko mooy loo xam ne nii day wala ñoo xam ne nii moom am ñu problème mooy waa Pikine waa Pikine moom suñu lam ne na ñoom fi ñuy jaar ba jógaat fi nekk nii loolu mooy li ñu war a lijjanti ndax nag yëglikaay bi na li leer ba leer day bu dee kii nga xam ne moo di Eumeu Sène moom kuréel ba mu yoroon dañu koo nangu ci ay loxoom Boy Niang moom li nga xam ne nii moom moo di li am ba des daal ci mbiram fi mu nekk nii mooy dañ koo taxawloo stopé daal lañu ko def arrêté lañ ko def ama moom gisee su ko sax ak ay bët mu wàcc ci lii nga xam ne moo di làmb ji bëre waaye yeneen ñoo xam ne moom wàcc nañu bëre ba mooy waat bu baax a baax a baax mooy waa école de lutte gay su sunu làmb ne na vingt combats la ñu bëre am ci onze victoire ak li nga xam ne nii day moom moo di six défaites ak trois match nul yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw di ñu ko wax mu mel ni ki nag école it Balla Gaye moom ah boo bëggee dégg dëgg daal daa mel ni seen mbir fi mu nekk nii xaw naa tane par rapport ak fa ñu jóge woon bu dee ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro deux ba nga xam ne nii nag moom mooy tête de file ba moom gagné na li nga xam ne nii moo di kombaam yëglikaay bi moo xëy ñëw tey di ñu ko wax am na fa ñeneen ñoo xam ne tamit gis nañ leen rawatina ku mel ni Boy Niang numéro 2 moom daal mag la moo xam ne ni day mu ngay wane boppam bu baax a baax a baax ak ay technique yoo xam ne daal mu ngi koy wane am na fa ay xale yoo xam ne tamit ñëw nañu wane seen bopp ku mel ni caatu Daouda Fall ak kii nga xam ne nii day moom moo di jaw de mu mel ni ki nag ñooñu moom ñooy révélation lii nga xam ne nii day moom moo di école ba waaye am na fa ñoo xam ne nii moom li leer ba leer day ah seeni mbir ca côté ba fa jaare bokk na ci Omar Fall numéro 2 Balla King ak Sa Thiès Senior ak Sambalaw bi ñoom day ay déception yu mag a mag a mag lañu ci école Balla Gaye bi nga xam ne nii day moo nekk ca géejawaay yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne tamit yëglikaay ba ñëw na tey wax ñu ko ka nga xam ne nag moo di Lamine Golo mu ngay wax ca école ba de ca la nga xam ne nii day moom la ñuy doxe fi mu nekk nii daal mel ni ki daal am xel xaw na caa war a mën a dal sunu làmb xëy ñëw wax ñu ko xëy daal gëstu ñu école dit Balla moom la yëglikaay bi xëy tey ñëw di ko def sunu làmb xëy ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne tamit wares na ko mën a wax wala ñu gis ko fi nga xam ne nii day moom mooy ci sunu làmb soq soq nag fi mu nekk nii day mu nga gàmbi di waajal digganteem ak gàmmu géey bu baax a baax a baax a baax yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw wax ñu ko waaye leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi xëy na tey ñëw di ñu ko wax mooy ñoo xam ne nii day wala koo xam ne nii day moom li mu wax ci record leer na nañ mooy rëg-rëg rëg-rëg daal nee na ko jox ki xam ne nii moo di wala ko ko jox boog ko sa gis su keroogee ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di daal ay mbër wala ñu leen ay poids lourds day moom jàpp na day ah ku ci lekk bu avance am daal jàppal ne moom yaa ngi ci guddi goo xam ne ni day bët satagul rëg-rëg a xëy tey ñëw ci record di fa wax lu mel ni que noonu ñu ne ko sa diggante ak Franc mu ne Franc day maag moom nekk nii est-ce que làmb la ndax bu dee ci wàllum bëri day bi rëg-rëg ne mu ne su ko wañ daan naa ko lu baree baree baree baree bëri te moom boo xoolee daa mel ni ñaar dong la am ci man ñëw na ci li nga xam ne nii day moom moo di daal seenu diggante moo tax mu jàpp ne fi mu nekk nii day làmb moom ci wàllu nit affaire frappe booleegu leen yëglikaay biri record moo xëy ñëw tey di ñu ko wax waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fa nga xam ne moo di la tribune la tribune tamit ñëw na ci diggante Tapha Tine ak ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux mel ni ki nag ñoom fi mu nekk nii day ci sursis la ñu toog ngir daal seen wala boog li des ci li nga xam ne nii moo di seen carrière wala fi nga xam ne fa la ñu war a jëm yëglikaay bi xëy ñëw tey di ñu wax lu mel ni kii noonu am na keneen koo xam ne tamit sunu làmb wan nañu ko muy nees koo xam ne day bëriwul waaye dafa mel ni fi mu nekk nii daal mu ngi bëre waaw absenté na daal waaye mu ngi présent bu baax a baax yëglikaay bi moo xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni kii noonu waaye leneen loo xam ne tamit yëglikaay yi daal xëy nañ cay ñëw. mooy li am ba des daal jàppal suñu làmb xëy wax na ko ay division la ko tudde cim division jàppal ay xale fa nekk yoo xam ne nii day xale yu jara bàyyi xel lañu muy ki nga xam ne moo di Libidor numéro deux ak ki nga xam ne mooy Boy Notaire ak Nees numéro deux yëglikaay bi xëy ñëw tey wan ñu xale yooyu mu mel ni ki daal ñi yàgg maar jar nañoo bàyyi xel ñeenti xale ngi yu jara bàyyi xel ëllëg ci làmb mbokk waa Leewtoo TV di leen nuyu leen gërëm di sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi di nuyu nag Babacar ñëwaat yëpp si waat sunu biir comme lu mu ko waxee démb rek xorom xorom la si cin Babacar mi ngi lay nuyu te waa Leewtoo tamit mbokk waa Leewtoo TV tamit namoonal la ak yàgg tamit sa waay waaw yàgg maar sama doomu ndey waa loolu am na namoon nañ ñëpp ah di nuyu ñëpp di nuyu internet yi di nuyu képp ki nga xam ne tamit yaa ngi bàyyi xel à travers le monde xam nga rek di wax ne moom lu ñu nama benn rek nam nañ leen ko lu ko raw a ah. waaw mais xam nga rek des fois ñu xaw a génn tuuti dañu génnoon dem tam xarit ji quoi loolu moo tax gisuñu. tam xarit rek. waa waa tam xarit rek waa bien sûr euh. waaw. kon baax na Babacar ni ñëw ak sunu mbokk internet yi si euh, quotidien sunu lamb ak li nga xam ni mooy roko sunu lamb nag tey mu ngi ñëw à la une def benn diagnostic bu yaatu maanaam def benn jàngat benn xayma la moo tax VIP def saison blanche yu tax amuñu combat nee ñu lu si nekk mooy sponsor yi mag yi doon gis si lamb yi ñëwatuñu teg si promoteur yu mag yi doon ñëw euh, comme ñoom Aziz ñoom Nicolas ñoom Gaston mais ñun ñëpp gisatul leen euh, VIP aussi di laaj cachet yu cher te loolu euh, promoteur yi àttontuñ ko teg si aussi ne PPV bi aussi tax na tamit loolu yëpp nekk si ay ay problèmes yoo xam ne VIP ni nga koy ni nga koy jànkonteel. waaw loolu de jàngat bu xóot a xóot la tey sunu làmb loolu la xëyate ah muy lu am am solo parce que tamit li am solo daal mooy que ni mbir mu nekk rek. bu doy dox ba benn moment mu taxaw xëy na am na lu tax mu taxaw yaa ngi dégg xay na ñoom loolu lañ def jàngat tey ci côté maanaam euh, sponsor yu mag a mag yi nga xam ne nii gisatuñ leen yaa ngi dégg wala tamit promoteurs yu mag yi nga xam ne gisatuñ leen moo xam Gaston la moo xam Aziz la moo xam Luc Nicolaï la ak kum ci mën a doon waaye loo ci mën di dégg daal euh, ndey Kumba li am ba des daal mooy que ni mbir mu mën a doon comme la doon wax rek su amee nu mu doxee wala moom lu mu tëddee li koy defar mooy dañuy fexe maanaam la nga xam ne nii euh, noonu la doon mel bu ñu demee ba gis ne melatul lu mel noonu ñu xool nu ñuy mën a def pour mbir ma avancé parce que tamit ah ñoom Gaston Mbengue nekkoon nañ fi Aziz ñoo ñee ñëpp di tëgg ay yenn événement yi am yenn sponsor yi xam nga tey nag loolu gisatuñ ko kon tamit yaakaar naa day obliser day day loolu day tax wala boog mooy dafa war a permettre tey mbër yi ñu xoolaat taxawaay bi moo xam si côté kas bi la ci côté euh, li ñuy fayeeku la bu ko defee pour mbir yi mën a avancer parce que tamit mënuñoo nekk ci benn affaire ñu dem ba benn moment na mu meloon melatuñu te ku ci ne doon nangu ubbi sa loxo kon il faut ku ci nekk rek nga wàcce sa loxo pour que bu ko defee li fi ne ñu mën ko it jariñoo maanaam tey sponsor bu mag amatul comme ni ñu ko waxee yéen promoteurs yi mag yi amatul kon c'est obligatoire ñu def ñu affaire yi wàcce ko ba mu wàcce wàcce wàcc ñu ngi wax tamit ne promoteur yi nga xam ne xaw nañu fi ñëwoon nañu fi euh, jéem a sukkali euh, làmb ji ku si mel ni Baye Ndiaye ku si mel ni euh, Moustapha Diop ak Thialis neen ñoom ñëpp ñëw nañu dimbale mbër yu mag yi mais ñoom ñëpp finalement dañoo xaw a dañoo perte combat yu mujjoon tëgg yu mag yëpp dañu see perte. waaw lool de moom gënul moom parce que bu fekkee ñun dañ ñëwoon pour indi lu bees wala pour suqali làmb yaa ngi dégg ñëw na far perte moo xam Thialis la moo xam Baye Ndiaye moo xam. Euh, Moustapha Diop la ah loolu li may wax li may wax rek moo si nekk daal yéene wuñu leen ko daal vraiment parce que tamit bu fekkee dañu ñëwoon tam ñoom yàlla def ñu mujj ci amee ay pertement loolu vraiment yaakaar naa itam kenn souhaité wu ko kenn ah, loolu nag waaw doy na waar daal doy na waar lool lool lool lool parce que tamit wax dëgg yàlla ñu ñu ñu ci lim bi yëpp bëgguñu woon wala xalaatuñu woon que ni bi ñu ñëw loolu moom lañ fi fekk si mais nag. waaw mu ngi noonu daal lamb ji daal kon fi mu nekk nii ndey ku jaxasoo na daal. lamb ji jaxasoo na trop moo tax nag euh, jaxasoo na tamit côté Pikine ndax nee ñu Pikine daal foofu dara neexatu fa ren moom neexlewuñu ndax Eumeu Sène mii nekkoon roi nekkatu roi booy Niang la dëggee da ko daan Ama balde tamit saison blanche la def Babacar. waaw loolu moom Pikine boo xoolee ren lu mel noonu am na parce que tamit boo xoolee couronne bi ñàkk nañ ko Boy Niang Lac de Guiers taxawloo na ko ki nga xam ne nii mooy Ama tamit gisuñu ko mu wàcc si géew bi bëri kon Pikine yaakaar naa am na benn plan de relance bi nga xam ne nii moom la ñu war a tegaat pour mën a xëy na saison prochaine ñu mën a defarwaat pour mën a demaat sport nag moo tëddee noonu ah des fois day neex xam nga parce que boo xoolee année bi passé Pikine dafa neex la woon trop si làmb jël couronne roi des arènes Ama Baldé bëre daan xam nga ki nga xam ne nii moom moo di Boy Niang tamit mun ñu newoon ci dynamique bu neex ren nag mu ñëw affaire yi demee noonu sport a demee noonu ah dañuy voilà day tourner quoi kon li ci des daal mooy que ni ñu dem liggéeyuwaat rek xëy na waajal saison prochaine xëy na bu déwénee yàlla mën a def mu neex seen côté parce que sport moom noonu lay doxee comme ni nga ko waxee rek bul la boo xam ne day tourner des fois mu def nii des fois mu def naa mais nag loolu lépp mooy sport parce que loolu amulee rek euh, sport neex daal il faut muy demee noonu Euh, su Pikine neexal moom Guédiawaye école de Balla Gaye ñoom neexal nañu nee ñu si bilan bi ne waa sunu lamb defal euh, tey nee ñu def nañu 20 combats 11 victoires 6 défaites ak ñetti nul maanaam daal seen saison neex na. waaw nooy waat nañ bu baax de noonu la ko journal bi bindee loolu tamit lu am am solo ah parce que tamit vraiment. Euh, boo xoolee lu toll ci vingt combats nga am ko am nga si lu toll si onze victoire ak six défaites ak trois nuls loolu yaakaar naa lu positif la kon li ñu leen di wax daal mooy ñu gën a liggéeyaat rek parce que tamit écurie la boo xam ne nii vraiment waaw euh, ñu ngi doxal daal parce que itam Balla Gaye ñëw na wane boppam ren am na fa ay xale yoo xam ne wane nañ seen bopp xam nga muy loo xam ne nii daal vraiment lu ñuy bilan la bu positif daal pour man bilan bu ñuy saluer la waa Babacar ki nga xam tamit nu des si sunu lamb si moom la ñuy jeexalee euh, si soose Socé mooy coach écurie Fass bi wane na tamit boppam moom daal rafetluwul li nga xam ni Abass Ndooy def na ko keroog maanaam dem teewe open press su Siteu ndax nee na Siteu ak Papa seen combat parce que taxaw na ay détails rek si def kon Abass warul waru woon dem si open press ba ndax loolu ni ñu koy teree Moustapha Gueye loolu ni ñu koy teree kii nga xam ne mooy Papa Sow kon tey bi su ko tamit moom loolu daf koy xaw a jaaxal. waaw waaw waaw loolu day soose da mooy entraîneur actuellement bu écurie Fass wala bokk na ci bopp bu gisee tey président écurie bi mu sol dàllam dem ci open press bu Siteu di woote open press ba xëy na Siteu lam la open press ba mu woote woon mooy open press bu nga xam ne nii day tax mooy jongante ji benn combat pay-per-view bu fële États-Unis Abass Ndoye xëy na ñu invité ko mu teew ca soose nag amul gis-gis bu mel noonu ah wax nit addina mu ngi noonu ku nekk ak li ngay gis ku nekk ak ni ngay xalaat ak ni ngay jàppe mbir waaye tamit ci benn côté mën nañ ne loolu warul am jafe-jafe man ci sama gis-gis parce que Siteu ci ci ni mu waxee wala man bi ma fi déggee micro si li mu waxee mooy la muy jongante ji da koy jongante ji gàddu drapeau Sénégal di ko yóbbu xëy na Abbas bu demee dama jàpp ne ci circonstance yooyu la demee mais demewul xëy na ci circonstance su euh, ku war a bëre ak waa écrit face parce que ak lu mën a xew Papa ak ak ak Siteu seen combat ñu ngi koy wax bañ ba ñuy wax taxaw ak ñàkk taxaw te yaakaar naa bu itam. combat la boo xam ne nii Abbas damaa foog ne bu keroogee ci ginnaaw écurie lay ne mais ci ginnaaw ki nga xam ne nii mooy Papa Sow ci lay ne parce que moom mooy problème mooy président écurie te itam yaakaar naa ne moo ko war a encadré waaw fi mu nekk nii nag comme li ñuy wax rek écurie Fass moom maanaam daal euh, seeni mbir daal xaw a doy waar daal waaw seeni mbir daal doy na waar trop trop trop waaw. dëpp bi nag est-ce que ah, ma la si waxoon rek ndëpp moom maanaam lu ñuy ak lu mënta xew ci ndëpp moom euh, bañ a jaawale la ngay ndëpp da ci am solo. waaw boo ko jaawalee moom di nga def lu ci bokkul parce que soit ndëppum dugub ba yow war a mën a am wala mboq wala yaa xam leneen ak leneen ak leneen waaw kantaan nag moom dem boobu mu dem fa nga xam ne nii moom mooy ci open press ba ah mu ngi noonu daal ñoom soose rek gis-gis bu mu ci am daal moom wax na ko Abass nag moom ma demoon moom magum yàllam jëm la xëy na la ko yóbbu mooy kii gis na ne drapeau Sénégal la porté pour dem defendre yi ko xëy na foofu xëy na moom moo tax mu dem jàppale ko mais yaakaar ne bu Papa Sow war bëri ak moom ah xalaat naa ne nag Abbas ci ginnaaw Papa Sow war a ne. loolu loolu mooy loo xam ne lu leer la ñu jógee nag sunu laam dem nag si eh, li nga xam ne mooy record record na tey dañuy indi interview waxtaan bu yaatu ak Reug bi nga xam ne mi ngi États-Unis mi ngi ko sekk ak sunu naataango boobu di naan abu Ndour nee na daal moom nañ ko jox kii nga xam ne mooy Modou mooy roi des arènes bu bees bi ne nañ ko jox mu mu wane moom lu mu mënee wax na aussi si combat am ak Franc nee na moom ak Franc bëri nañu 13 fois doon benn yoon la ko Franc <laughs> mos a dóor te nee na eh, ren ren nag la nit ñi di xam kan mooy vrai Reug Reug si lay wane daal boppam daal saison bi di ñëw lay wane nag naka la mënee ak luur waaw Reug Reug de tey abundu seex naa bu waxtaan bu yaatu yaakaar naa depuis États-Unis mu ngi fa maa ngi dégg ñu koy nuyaat di ko ziar nuyu abundu du nuyu waa Record yëpp waaw moom yaakaar naa fi mu nekk nii moom mm, bu doon kii la euh, kii yooyu nekk si ay ndox dañ naan mat na fi mu nekk nii mat na yeew waaw jaan bu mat la ci làmb tey Reug Reug parce tamit. ku waxut lii wax la fa sës làmb mbër la mi nga xam ne nii tey eh, wane na boppam bu baax a baax a baax ci làmb parce que defe naa adversaire yi ñu ko indil yépp ku ci ne dafa la daan avec la manière tey nag bu demee ba ne même bu ñu ko joxoon Modou Lo sax nit ñi dinañu gis mi nga xam ne muy roi des arènes ah loolu xel war na ko mën a nangu yaa ngi dégg bëgg-bëggam la jouem la te li ñuy wax rek vedette bu ndaw maanaam vedette bu mag moo koy dundal ah diggante mag Modou Lo nag ah, làmb la de su amee làmb ju war a mën a neex la su dee Modou Lo nangu na ko ngir bëre ak moom waaye nag loolu tamit moo dooy nangu quant à ci digganteem ak Franc nee na moom daan na ko su ma jumul douze fois la wax xaw ma treize fois la ko daan Franc daan ko benn waa loolu nag ah loolu itam vraiment day nekk mbir moo xam ne nii waaw ci kon actuellement pour ñu bëri ci lutte avec farab xëy na mën naa xaw a jafe ñaa ngi dégg loolu moom du doon lu yomb mais nag l'essentiel comme li ñuy wax la rek olof dane bu yoon jeexul waxu sul di jeex Franc itam lancé bi mu nekk ci lutte avec frappe su naa itam dina yegg fi ay moroom mbërëm yegg parce que mbër la moom tamit te champion la moom Franc mu ngi wane boppam bu baax nii moom nekkatul ku ñuy présenté ci lutte avec frappe rawatina lutte lutte lutte lutte bi nga xam ne nii mooy naa daal euh, ndey kumba la may wax rek nañ yónnee yàgg rek bu yónnee yàgg bu demee bu ñëwee xëy na dina indi dara waaw. si kàddu yooyu leen di tàggoo Babacar di jox di daje suba incha allah mais balaa boobu may nuy sama yaay mère Sow nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Dadi Guèye naan ko dellu la ndar si ak jàmm ak salaam euh, di nuyu aussi sama doom yooyu noonu euh, bébé Fallou bébé Penda euh, Mame jaara di nuyu aussi Eva Diallo. yaayu bébé Rokhaya di nuyu aussi Astandine DG Brahma depuis Italie chérie Khadija daal Diallo depuis unité 26 di nuyu aussi yàgg tey moom si sense bi sense bi moom rafet na trop daal yi mu ko boo rek moom a moom xaw a yéem daal mais daal tey moom Babacar tey moom amula wax tey yàgg tey. waaw tey fi mu génn nooy na si kaala gi ak ensemble bi macha allah yàgg ba rek daal di ñu koy nuyu di ko ziar mais di nuyu internet di ñu suivre yëpp di leen baloo ak di leen balaax di leen wax na rek xam nga yaram yi moo xawoon a kii fan yi quoi waaw waaw mais maa ngi sant yàlla bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp a di wax ne que Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm jeex na